هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير ولا سفيع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

góor vinaigre dafa jeex vinaigre. waay. alors. kon nekkati nekk mënoo mënoo nekk mënoo complot kese rek kon mën nga li lépp. ah oui la. nga ne. bu man soxna Bator ngay topp di complot rek dara mënoo ko ci waañu. ah. mënul toog. Mhm. waaw dem toogul. dem gis naa ko. daa baay bañ yàq añu Bator soogee ñëw. mais nag nee na tey mi ngi waajal sénégalais surprise bu garaaw waaw nañ ko xaar nañ ko xaar tuuti ci kanam ak man naa leen ko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 ni ñu koy defee ak Sénégal Buzz 221 di ànd ak yéen di leen ma ko wan bépp ndaanaan loo xamante ne rek ñëw na ci bés bi parce que yéene dund li nga xamante ni moo di màggal Touba waaye nag tey ni ma koy waxee maa ngi jàpp boobu ba léegi ay célébrité di ko wan sénégalais waaye nag dama teewaat keneen koo xamante ne sama sister la sama xarit la sénégalais xam nañ ko bu baax a baax a baax muy Amina sénégalais xam ko bu baax a baax ci maison de production boobu noonu di euh, Pikini rawatina série boobu nga xamante ni moo di famille sénégalaise tey nag ma ñëw fekk ko dalam dama kaa fekk mu nekk ci waañ bi nag tey moom daa laxasaayu fas yéene liggéeyal li nga xamante ni moo di sëriñ bi ah bernde gan yi waaye ma naq ko rek ne ko kaay toog jàkkaarloog sénégalais ñu waxtaanee bés bi am naa mbégte bu baax a baax a baax tey fekk la fi ma bàyyi la nga jox bokk internet bi. frère de cœur nuyu naa siyaar la. Mhm. joxo sa wàccuwaay. di waxati jërëjëf ci Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou. sëriñ Sall ndigal Thioune yàlla na fi yàgg te sëñ amiin waay sëriñ Béthio yàlla sax ci leeram ak keppaaram. amiin sëriñ Mountakha xalif général kulu murit yàlla na yàlla guddal fanam te bàyyi ñoom moom. Mm-hmm, mm-hmm. du nuyu àdduna wërngal képp du nuyu ñëpp. Mm-hmm. du nuyu waatu Touba. macha allah di nuyu àdduna wëndër képp comme ni ma ko waxee rek tey dama laa fekk nga nekk ci waañ bi waaye li ñuy dóoree rek euh, naka ngeen dundee li nga xamante ni mooy di mbégte màggal gi fan yëpp ñu ngi woon ci wàccaa gi waaye ñu yegg ci bés bi 18 safar naka ngeen dundee mbégte bi Amina. waa bëgg rek El xam nga su tubaarikàlla màggal dafa doy waat dañ di ay murit ñuy ay taalibe Serigne Touba ku ne xam ne <laughs> tayam gu ne gàcce la démbam. te amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ñuy santaat sëriñ bi waaj waaj waaj bee métti rek waaye sëñ bi ñëpp xam nañ ne bu ne kët nu jot lépp lépp féete boor lépp sotti. ñu ko ciy santaat bu baax a baax a baax. Mhm. di ko ci santaat bu baax a baax a baax ginnaaw euh, ni ñu koy waxee rek ku ne màggal di nga wax li nga xamante di moo di jàng xasaay bernde def lépp waaye ren ngeen ñëw. ci ñëwin boo xamante ni da ngeen topp li nga xamante ni moo di diglay ak ndigal li nga xamante ne moom la Serigne Mountakha joxe. ci na changement yi nga xamante ne noonu ngeen yàgg a màggal see biir tubaa ren moom. xale yëpp a simple. waaw naka nga gisee ndigal loolu sëriñ Mountakha joxe waaye ñu bëri ci jigéen ñi ànd ak moom ci ndigal loolu mu joxe. waaw mu ne da ngay jëfee ndigal. Mhm. te nit da ngay am kilifa. la ma waxoon rek dëkk jàmbur boo fay dem wala kër jàmbur da ngay def la boroom dëkk ba bëgg. Mhm. te ku ne xam ne ne murid dëgg murid dëgg bi tax ñu wax murid da ngay jëfe ndigal di bàyyi tere. Mhm. li mu wax dañ ci ànd ak moom rek ànd ak moom ci ndigal bi ànd ak moom ci liggéey bi te xam ne yàquluñu dara. waaw te xam ne yàqul leen la gën rafet nga ne kii la. Mhm. donc xoolal rek li ñu wàññi lépp li ñu def ak ban changement la am ci diggante bi. Mhm. jigéen nag moo tàmm yokk naa mënta ñàkk. Mhm. ñoo bëgg yokkaat di defaraat xam nga di jekki-jekkal. waaye lii ñu tere yàqul dara ci màggal gi. yàqul dara ci màggal gi yokkute kese la. waaye ku wax màggal bi nga wax ki nga xamante ne moo di Serigne Saliou yaakaar naa ne sénégalais xam nañ bu baax a baax a baax cofeel bi nga xamante ne am nga ko ci moom Amina sa digganteeg Serigne Saliou. sama diggante ak Serigne Saliou. waaw ah loolu day ne waar de yéeme na de loolu buñ si duggee tamit. xam nga damaa gaaw a jooy a ngay yàq émission bi. parce que tey du ñu waxtaanee lu dul màggal Touba du ñu waxtaanee lu dul ñi nga xamante ni tey ñoom lañ suñu borom booleel ñu yaakaar di leen topp euh, sa cofeel ci Serigne Saliou lan nga ñu si mën a wax. tayu ko. micro man sama lépp Serigne Saliou la. Mhm. waaw man. Amina gi sax la nit ñi xam waaye ku ne xam na ne Aïda Ndiaye bu Serigne Saliou lañ may woowee. Mhm. ma juddu bëgg ko. màgg bëgg ko. Hmm. ba toll ni ma toll ba mel ni ma mel lu ma am man Serigne Saliou la. Hmm. sama diggante ak Serigne Saliou mbóot yi ci nekk ak secret yi ci nekk mënu ma ko wax doomu aadama lu may yëgle di ko dund la moo ma koy won ndax man damay wax ak moom dama koo gëm moo ma booleeg Serigne Béthio. Hmm. waaw sëriñ Saliou moom buñ ci duggee. da nga yàq émission bi ndax ñëpp xam nañ ni ma mel moom xam lan laa ko deseel. am tout tànk tuddee ko ko. moom rek laa ko deseel. nee naa bu fekkoon. Mhm. Euh, dama ay comme ni ñu am leen jëkkër ngeen bañ sëy bañu ñu de dañoo gisul mais man su demaatee ba dugg sëy bëgg sëy dëggantaan nopp ci bëgg naa ci am sëriñ Saliou. Mhm. kooku su ma ko tuddee woon doom rek wàcc wàccoo naa ak moom. Mhm. wàccoo mais sama digganteeg sëñ Saliou moom mënu ma ci sori. dafa mel ni sama digganteeg sama waajur bu jigéen. te Serigne saal da cee raw. Mm. ñëpp xam nañ su ma diggante ak Serigne Sall bu ma sori. Mm-hmm. nañ génn foofu ndax Serigne Ba Serigne saal yi moo ma booleeg sëñ Béthio cofeel gi ma am ci moom ak bëgg gi ma ko bëgg ma ma yóbbu sëñ Béthio. Mm-hmm. loolu yóbbu ci sëñ foofu. Mm-hmm. mais mais mais tey day am nit tey wala tey bu ñuy bëgg ñu bëri tey bu ñuy bëgg dara euh, dama kaa gis ci gént wala lii moo tax si ban anam la la Serigne Sall yi man nee naa damaa judd ci ban ci moom. nee naa judd bëgg ko. Hmm. màgg bëgg ko man tukulóor laa làkkat laa Serigne Touba moo ne woon kër gu nekk naa fa dugg hmm. tànn ka fa gën takkale ko sa jëmm ji. moom Serigne Saliou moo ne woon Serigne Béthio kër gu nekk naa fa dugg tànn fa ka fa gën takkale ko sa jëmm ji sama bëgg ci moom nee naa damaa judd man xam màgg bëgg sëriñ Saliou déggoo ma de. may doomu làkkat am famille bu ma bokk. ma teel a nekk murit bi may ñëw Touba aw ma sax 10 ans. na di dox mu bokk ci benn daayira isbu Aïcha maa ngi koy nuyu de passage sama copine d'enfance la Grand Médine la dëkk di nuyu képp ku dëkk Grand Médine. encore une fois ma ànd moom seen daayira wàcc fa daayira ja waa isbu ñëw seet si Cheikh Béthio. jëriñ ma tàndoog ma dem seen dal mu dalal ma. ak Amina maa ngi nuyu moom yóbbu ma jébbalu ci Cheikh Béthio ma ne leen man ni ma bëggee woon Serigne Saliou moo tax ma ñëw ci Cheikh Béthio ñu ne ma lu tax loolu ma leen di expliquer sama jaar-jaar ak moom damaa tëdd ba xaaja guddi ba xaaja guddi gis jëmmam ji mu ne ma yow da ngay dem nga jébbalu Serigne Béthio nga ànd ak moom bëgg gi ma bëgg moom Serigne Saliou de ne ma bëgg gi ma bëgg mhm. xam naa ni dëgg la ci yow te lu wér la ci yow bëgg googu nga ma bëgg noonu yi la ma sëriñ Béthio bëggee te noonu la sëriñ Béthio di ànd ak man dama jébbalu ci sëriñ Béthio lee ma yóbbu ci sëriñ bi mhm. ma jébbalu di dox gis ko te réccuuma ci mhm. dara mhm. dama tëdd gis ko yan moment nga toll yoo xamante ne xëy na tolloon nga ci moment euh, boo xamante ne yaa ngi ci ay difficulté wala ay jafe-jafe tout récemment euh, rek tudd Serigne Touba Serigne rek mu ñëw décanté situation tout récemment ci màggal gi rek Ah bon màggal gi dafa tar ñëpp xam nañ ne weeru ut dëkk bi dafa metti mm-hmm. xam nga ne weer mu ngi soog a dee mm-hmm. màggalu ren gi ñenn ñi dañ ñaan dafa cate ñenn ñaan catewuñu ñu ngi sant mm-hmm. ndax bu catee ak bu catewu lépp ñun sant nañu kañ barki démb dama toog sama kër barki Sëriñ Tubaa sama biir saal yooyu ñoo ko sama kër Marème maa ngi koy nuyu tubaarikàlla mu toog ma ne ko yaa ngi nii toog si saal bi de jàkkaarloog man di xelli kafe naanu ma tey ci kafe gi di wax ak moom de uh-huh. ma ne ko nga toogaat nii tim ma <laughs> nga nekkaat nii sama wet te nga ne yow màggal gi ñëw na mu leer na ne man damaa war a jëf am li may xaar doo def différence comme ni nga daan def ak man dem ki toog foofu naan ma ay yéen kii dafa dof mareem mu may dégg de ñoo nekk sama beneen copine bi day kub ma naan ay yow kii mu ngi waxtu xamuñu li may wax ñu naan dafa aalu ma ne ko barki Serigne Saliou Mbacké tàmm nga dañeen minute dañu moment ngay ñëw mais tey wala suba moom boo ñëwul mm-hmm. dootoo ko defati mbaa yëngu ne daa ñëw. maa maa màggal ba màgg fu dara newut. ndeysaan oto bu ndaw ma indi biir Touba. Mhm. oto bu tuuti climatisé moo ma indi ba biir tubaa ma dal fu neex fu baax ñëw jëfar sëriñ bi. di liggéeyee sëriñ bi xanaa du mhm. sëriñ Saali wuyu na ma. kenn du sëriñ Saali chaque jour mu wuyu si ma. ndeysaan chaque man fu ma jaaxlee woo ko bu ñëw damay waxtaan ak moom. ban souvenir nga dul nga fàtte ci moom. benn souvenir bi mu wàccee liggéey. micro micro. bi mu wàccee mu wàccee liggéey. Mm-hmm. bi mu wàccee loolu moom souvenir la boo xam ne mënu ma ko fàtte parce que ndeysaan dañoo demoon ay cant suñu benn bokku taali bi bokkoon suñu daara moo doon moo amoon tànk xaw ma doon ceetal ñu dem benn dëkk bu sori ñibbi ma ma ma tëdd di nelaw suñu waa kër yëg nañ ko ñëpp yëg nañ ko ba ñi ma dëkkal ñëpp ñu may xalaat man sama yaay sama waajur bu jigéen tamit di ma xalaat ci loolu. mënuñu ma yee mënuñu ma ko wax mënu leen bàyyi leen ko mu nelaw sama yaay maa ngi koy nuyu Njaay Jaata sa ak Buri Njaay bi hmm. sama xol sama xarit maa ngi lay nuyu bu baax yaay mu ne nañ ma ñu ne buñ ma ma jékki rek yeewu nii dëkk bi mel rek bi mu liggéey mu lan moo xew ñu noppi taalu ma télé xoolu ma téléphone xoolu ma dara sama yaay ne ma kaay ma ñëw mu ne ma yëgoo li xew ma ne ko déedéet sama mag dama sa sëriñ bi ma wàññeeku may jooy mu betti ma maam surprise bu mag bu rëy ci àddina boo xamante ne suma dund métit boobu moom musuma ko dund mhm. mu métti ko fàtte ma bëgg dem parce que xew laa jóge woon awma ma paas pour ñëw Touba ma dem si frère sama benn mag boo xam ne tamit yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na préfet moo bàcc ñooy ànd sama taawu yaay baax macha allah taawoo taaw nuy naa la bàcc chéri jéyo ma fëgg ko dama ko yee mu ne ma lan la ma ne ko yëgoo li xew mun ma yëg naa ko te yow rek laa xalaat muy si dëgg maa ngi ci fen wàññeeku na ma ne ko damay dem baax mu ne ma toogal ma ne ko du toog boo ma joxul damay dox dem ba Touba may jooy jooy yu metti mu yëkkati lalam daal di yëkkati 15000 jox ma ma ñëw Touba ci bi Serigne Saliou melawee. noonu la kaa demee. nee naa la bu ñu dugg foofu waaw. macha allah day daal uh-huh. metti na ma te bëgguma dugg daal foofu ñu ci sori. Uh-huh. nee naa la Serigne Saliou aw ma ci sago. Uh-huh. tayu ma ko nu mu ci moom. ëpp na ma doole. ëpp na la doole macha allah loolu am na solo loolu waaye nag ku ne Serigne Saliou di nga ne Cheikh Béthio. Ah. sa digganteek moom nga xamante ni tey naam nekkatu fi. waaye ba ba ah. léegi yéen a ngi wëyal ànd bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak moom li nga ko waxee sànq foo mën a nekk ci Touba bésu màggal jannatu la lay fekk. waaw parce que nit da ngay am Serigne kenn ku nekk am nga la ñëpp xam nañ ni Serigne Béthio mooy Serigne Saliou Serigne Saliou mooy Serigne Béthio. Mhm. waaw kooku. ñëpp àdduna bi yëpp xam nañ ko ñëpp nangu nañ ko. Mhm. donc Thioune suñu sëriñ la suñu lépp la moom it mu def ci ñun ndax ku ne xam na ne sëriñ Béthio daa defar ay taalibeem. Mhm. ñun samedi gi jot ñu sant sëriñ bi. Mhm. jeudi ñu dem daara wala dimanche sëriñ Béthio lan lan la ñu deseel dara sëriñ Béthio moo am ay taalibe yu jongama yu rafet. sëriñ Béthio ci am ay taalibe yu nangoo liggéey mm-hmm. yow gis nga dal bi ay gentleman da nga fi fekk ak ay soxna yu jongoma mm-hmm. sëriñ Béthio moo am ay taalibe yoo xam ne dañoo mën a jëfal seen sëriñ mm-hmm. ndax moom loolu la xam daa liggéeyal sëriñ Saaliw ba wàcc dégg nga ma ñun kon amuñu lu ñuy wax xam naa ne daal màggal Tuubaa fu waaye mënti nekk ci àdduna man de maa ngi janatu ba géej bi fer màggal Touba moom dinañ bëri ay invité ku ne dinañu soxla hmm. waaye man màggal gu jot maa ngi janatu sama dëkk sëriñ hmm. màggalee fi di fi sant sëriñ bi macha allah loolu loolu ba si màggal yaa ngi janatu sa kër sëriñ di màggalee sëriñ bi ni mu koy waxee rek di siyaar sëñ hmm. Saal ndigal Cuun sëñ Saal ndigal xalif général ku limu di ko ñaanal mu yàgg fi te wér amin Cuun amin baari kaala dese lu ñu dara ñëpp gis nañ ñi janatu dañ koo dëb ba mook ni bàyyam daan def rek la fi def na ko waaw ñu naan ku sa baay baay yi boo yokkut yaa wàññi waaye moom yokku na yokk na bu baax a baax a baax cuun ñu ngi lay siyaar bu baax waaye comme ni ñu koy waxee fu mu nekk nii ñu ngi ci yor yooru màggal gi euh, li lay xaar ci liggéey bi bëri na waaye tamit du ñu toog ak yow ndax euh, sànq mën naa ne sax bokk nga ci ñi nga xamante ne yaa ma doon dëfal di ma forcer di ma jox ma lekk ci naqar bi nga mm-hmm. xamante ne ñoo ko bokk suñu frère mu bett ma loola ah, Abdel Wane JP JP ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom yërëm ko mu nekkoon nit ku baax koo xamante ne yaakaar naa ne artistes ñëpp xam nañ yaatam ak bëgg nitam yëgee nouvelle bi sax mën naa ne maa la ko wax bu ah, la ko waxee euh, choqué nga hmm. choqué boo xamante ne li nga doon def sax da nga ko sànni yëg-yëg bi nga am ak lan ngay wax ci li nga xamante ne moo di demam gi ah. choc rek wan yaa ma ko tàggee hmm. yaa ma ko wax choc bu choc bu rëy laa ci am metteel te mënuma ci dara suñ borom nag soxlaa ñëppay ñàkk hmm. di wax yàlla na ko yàlla yërëm xale ko àjjana suuf oyof si kawam waaye suñu milieu bi ah, tamit ah temps yi eh. tamit ñun. yéen ah artistes yi. li wàññeeku nii ah appartement yi mu ngi koy fëgg rek ak kër yi tamit. Eh? xamante ah. ah mais àdduna demee noonu nag lu nax suñu saa. waaye léeg xam nga da naan daf ñoo nen. est-ce que dégg nga ma. Hmm. déggoo li ma wax xanaa. maa ngi lay dégg bàyyi dof dof xam nga ne yaa ma ko tàgg fii ba ma sànni li ma yoroon. dégg la waaw moom temps yi qu'est-ce qui se passe. Hmm. moom. Eh. ah waaw baax na. mu xool feneen. ah tamit artistes yi. yàlla na leen yàlla yërëm ñoom ñu dem ñëpp yàlla xare na aajoon suuf oyof seen kaw man daal na ma fi baax dew ma léegi de na ma bàyyi fii nit la ku baax boo ko doon toog di gis ci télé bi muy joué mu nekkoon nit ku baax lan nga ba ban image nga doon gis ci moom waaw moom tubaarikàlla lu mu musu joué neex na man seen mërs dama ko doon xool ndax da doon dégager lu doy waar da doon génnee lu am solo maanaam xam nga lu ñu naan personnage boo ci duggee ñu jox la benn affaire nga dugg ci da ci doon dégagé lu garaaw loo xam ne da nga naan yow kii nii la mel man ma si moom dama ko doon seetaan dama doon sax tiit bu defee benn affaire da nga naan kii nii la mel. wala kii ni mu bonee. comprendre nga. mais na ko yàlla yërëm il assure bien. waaw dafay waaw. personnage am comme comme lu doy waar daal. man moom xool naa ko suivre naa ko topp naa ko yàlla na ko yàlla yërëm. suuf oyof si kawam ci dara jun te rafet nañ ci njort ndax fi mu demee. muy lu am solo ah. yaakaar naa ne loolu aussi euh, ñu ngi koy ñaanal ñu nit bu baax a baax a baax ndax nit la koo xamante ni man moom sama xarit la. waaw yow ñu la koy jaale bu baax damay waxtaan ak moom bu mm-hmm. baax la ah. affaire bi moom franchement bokk naa si ñu mu gën a bett. bokk naa ñu mu gën a def choc ah waaye sant yàlla rek yàlla moom su bëggee rek ku soxla dangay ngay ñàkk Amina. ay da yaakaar naa ne li ñu ko yëkkati ci ay kàddu tey ci bés bi nga xamante ne mooy bésul safar di bésul mbégte sénégalais kontaan nañ ci bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo bi nga xamante ne jàkkaarloo woon nañ ko ak yow xam naa damay profité rek bàyyi la nga joxe dernière kàddu yi wala bu amee tamit loo bëgg yokk ci màggal gi rek ñu ma may la ko rek sista màggal gi euh. màggal gi lépp neex na ndax sant nañ sëriñ bi ñëw nañ màggal si jàmm te dina ñibbiwaat si jaam incha allah mhm. ñu ngi santaat sëriñ bu baax ci dimbal bi ñu dimbali di ñaanalaat sama sëriñ sama wasila ndigal cuun yàlla na fi yàgg ma koy siyaare di ko jox wàccuwaayam ak ay waa këram ak ñëpp di nuyu sama mbokku taalibe yi fi nekk di nuyu sama jëwriñ jëwriñ Tamsir ndax man Touba Unité 18 laa nekk mhm. di nuyu jëwriñ Matar ah di nuyu ñëpp di nuyu waa dal bi ak waa ndax man fa nekk ci waañ bi laa la jëlee ñee la kaay mhm. màggal daal ñëpp xam nañ la ci nekk li mhm. ma wax sànq sëriñ Touba amul tànkinaaw tànkinam la am dégg nga màggal daal bu jotee bu ñu ñëwatee ñun soxna yi mhm. nañuy jàpp ci liggéey bi mhm. liggéey sëriñ bi mhm. nañu ànd ak góor yàlla ci waañi ànd ak soxna yi ci waañi liggéey yàq dara suñu solo suñu summi di siyaar sama mbokku taalibe fi nekk sama waa daara ak daara bépp bu ma wër ak képp kuy cantaakoon ak képp kuy wër siyaar naa la di wax ci sama grand bi nga xam ne tubaarikaale sama yaay da nga say jongama ba lii lan la ba jàmm te dama mbusóoru waaw tey damaa mu sóoru eh, sama yaay jow faraag ma jow xoor borom mbuur waaw jow faraag ma jow xoor laati jow ma jow xoor kooku mooy yaay ma dem ak maxu waaw moo ma jox grand bu bu ne muut na ma màggal jee ko laal ma ay mën fa yu rafet waa di nuyu ñëpp ak mm. laay création tubaarikàlla sama waa ji waaw ibrahima gars yi sot nañ daal ñawuma uh-huh. waaj naa ak doole waaw ay téy ma indi dafa garaaw de est-ce que doo ñëwaat damay ñëwaat deuxième nuyu waa famille sénégalaise damay ñëwaat damay ñëwaat damay ñëwaat. di nuyu waa famille sénégalaise képp ku fa nekk di nuyu artistes yi nekk Sénégal di nuyu àdduna wër nga képp. naan sama yaay je encore une fois sama xarit. Mm-hmm. waaw kooku sama xarit la. waaw yàlla may ko gudd fan. bu fekkee njëriñ bi ak teraanga yi nga xamante ne am nañ ko ci moom. di kontaan bu baax a baax a baax ci jàkkaarloog yéen di leen jox ci daje si beneen numéro jërë jëf